bi sifflé na ah diggante Ramdan ak Infra Rouge Infra Rouge moo féetee seen rajo Ramdan féetee seen loxo càmmuñ ñu ñaari xale yu mën a bëre ah di drapeau jënd création ay Fallou Ndiaye production bi bés ndeysaan Fallou Ndiaye production Infra Rouge Ramdan Ramdan mel nañ day dem de. Infra ñu ne takk rek di day dem de Infra Rouge Ramdan ku ci ne respect bi war ci combat bi jox nga ko ku ci nekk respect bi war ci sa morom jox nga ko ku ci nekk yaa ngi jàpp sa loxo càmm ñu morom waaye mel ni combat mbapat la ma gën a duru gawuma nag dinañu xeex ndax ñoom ñaar kenn jëlagu ci initiative bu xeex Ramdan Infra Rouge dara amagul Ramdan Infra la ilaha illallah Ramdan cokaas na Ramdan cokaas na waaye dalul Ramdan Infra Rouge la ilaha illallah hey la ilaha illallah hey Infra Rouge Infra Rouge Ramdan dara amul dara amul père maa ngi jégalu Ramdan infrarouge jàppante nañu waaye Ramdan am na ngemb na ngemb infrarouge ñu koy xëleel laa ilaaha illallaah rëpp nañu rëpp nañu rëpp nañu rëpp nañu arbitre nee leen bëri leen arbitre nee leen bëri leen arbitre nee ñu bëri ñu entraîneur dañu bàyyi dugg ci làmb ji arbitre na ñaari xale yi bëri nañu bëgg ku ne rëpp infrarouge dafa ni que def quatre mu nar ko bàyyi arbitre nee na bëri leen waaye dañu gis kee xam ne mooy entraîneur infra rouge moom it daw dugg ci biir géew bi moo tax arbitre atte ñu ngi xeexaat Ramdan infra rouge laa ilaha illallah woo ñaari xale yi mën na lu bëri oh oh entraîneur bi jàppante waat nañ jàppante waat nañ Ramdan infra rouge jàppante waat nañ Ramdaan amaat na njam Ramdaan amaat njam lu mu ciy def Ramdaan amati na njam xañ na xale bi Ramdaan jàpp na xañ infrarouge mu jàpp Ramdaan jàpp na xañ ko jàpp na xañ ko Ramdaan xañ na ko waaw xale bëgg naa jàpp jeex na jeex na laa ilaaha illallaah jeex na waxoon naa la ko Ramdan la Ramdan xañ na ko waaw xale bëgg naa jàpp jeex na jeex na laa ilaaha illallaah jeex na waxoon naa la ko Ramdan mbabatkat la waxoon naa la ko bu jàppee rek am lim